na solo euh, euh, mbiru euh, commandant Sané moo ñu gën a tarxisloo sax bu baax ci affaire wu ñu taxaw ci te c'est important xam naa ni jaroon na sax ñu jagleel ko une émission vraiment entière mais ponk yi ñu war a waxtaane dafa bari Adama gay ndax xamoon nga ko xam Adama Gaye xam naa ko bu baax Adama gay xam naa ko bu baax Adama journaliste bu am xam-xam la mhm. nekkoon na soleil mhm. jamono yu yàgg nekk CEDEAO organisme yu bëri sous régionaux liggéey na ci mhm. euh, sama xarit la ci Facebook dañuy échanger yu bëri mhm. dañuy mbëkkante sax yu bëri bëri ñi ñi nekk ci Facebook xam nañ ne dañuy débat man ak moom ci ay ci ay sujet du ñu mhm. d'accord mais dañuy débat ay débat yu am solo mu joxe argument mu joxe argument te à la fin dañuy ne waa kon nag temps yi ñu def la ciri ñu ñu lekk kon euh, d'abord li may def mooy euh, massawu ko ci épreuve bi mu nekk ndax kenn bëggul gis sa mbokk mu caabi féete ko ginnaaw mhm. surtout koo xam ne kii euh, waroon na mën a féete Sénégal feneen fu dul foofu mhm. loolu pour l'instant laa mën a wax soo ma laajee lu gën a xóot ma d'accord moo ban yow xam nga ko waaw Adama boo xamante nañu récemment yàggulaa ah, war a def léegi peut-être ay cinq ans six ans alors que yàgg na no boo bi bon est-ce que sax bi ñu nekk ci euh, dire dans l'opposition ma yoroon benn mouvement citoyen mu nekkoon nit ku nit ku am pas-pas nit ku dëgg aussi. Mhm. nit ku nga xamante ni moom lu mu gëm ci loolu lay nekk euh, quelles que soient les conditions lu mu ci lu ko ci mën a dal rek dal ko ci. Mhm. donc mais li ko dal vraiment lu lu metti la ñu yaakaar ni vraiment. Euh, war nañ ko mën a jéggal daal waratuñ tool foo nga xamante ni ci réew mi mhm. nit danañ danañ ko dàq ci danañ ko jàpp ci ci ci mu wax xalaatam peut-être que aussi liñ li mu wax tamit mën nañ ko mën nañ ci débattre mën nañ ci débattre léegi monsieur le ministre mhm. est-ce li mu wax nga xam ni mën nañ ci mën nañ ci débattre comme ni mu ko waxee mhm. mënuñu ko jàppee agression aussi verbale ci su fekkee ne man ko jàppee agression verbale bu mérité aussi sanction. bind naa ci man bind naa ci. man moom xam nga lépp lu ma xalaat duma koy bind te loolu lay assumé Euh, li mu bind su fekkente ne li presse bi génne ay postes yoo xam ni dañ ko encadré en couleur mhm. si ay éléments yu factuel yoo xam ni dafa dem ci wàllu mërs mhm. su fekkente ne loolu dong lañ ko toppee man nee naa loolu c'est indéfendable mhm. man du ma défendre loo xam ni lii man duma ko def te ku ma ko defoon ma mer loolu mu di benn boor mais bu ñu fàtte nag ne depuis plus de trente ans bind na ay livres. relation yi Afrique war a am ak Chine. Mhm. li mu ci dox. Mhm. ba bind ci ay livres. Mhm. dafa bëri. li mu bind avant ak jéego yu mu dox ci wàllu pétrole. parce que man maa ngi ko xam cabinet euh, avant cabinet président Wade avant bi ñu doon débat sax ci Walfadjri la woon. ñuy mbëkkante mbëkkante yu metti mu bind ci Walfadjri ma bind ma tontu ko. ma xam ko ci cabinet président Wade xam naa ne am na ay mbir yu bëri yoo xam ne Sénégal jafe woon na ko mu dox ci. donc pour man nit mën na juum pour man nit mën na juum. mais benn njuumte warul effacer trente ans de bons et loyaux services Sénégal nañ delloo suñu xel. dégg naa keroog fii ci benn débat boo xam ne bii effectivement ma Madiambal Diagne mu ngi toogoon fi ma toog. Euh, muy rappeler euh, Abdoulaye Wade glissade bi mu def glissade verbale bi mu def. Mmh. ñëpp naqarlu ko woon. Mmh. ma ni mais avant ça kan moo moo sa dégg Ablaye Wade mu wax waxu ñaaw personne en 26 ans d'opposition et en 12 ans de pouvoir ci benn erreur mënoo ci juger nit qualifier ko mhm. il faut ñu yaatal suñuy dënn et puis ku nekk aussi xam ni nit lañu mhm. ay doomu aadama doomu aadama mun na tarxiis mhm. mais su tarxiisee dañ ko war a yëkkati mu jóg ci li ma mujj bind nee naa li ma naqadi ci Sénégal moo di les canaux de médiation amatul xam nga Pape Magne su ma la gisoon yow ngay def erreur ak kóllëre gi ñu seq. danaa dox guddi ñëw ci yow ne la Pape ça c'est pas bon. bu ko def bokk na ci débat yi ma am ak maam euh, ak Adama Gaye ci Facebook ci ci télévision laa yoo xam naa ne peut-être mu ngi koy seetaan bi mu commencé intervenir sur question ethnique yi ma nekkoo ko kaay ñu débat. publiquement parce que yenn yi jarul nëbbatu ma ne ko nañu débat publiquement parce que booba maa ngi wut nu ñu génnee. ci guuta googu parce que baaxul ci réew mi mhm. te yaakaar naa ne ñun ñëpp loolu la war a def su fekkente ne gis nañu kenn kuy def dérive ak nu dérive bi mënti mel am ñu jël seeni marakis dox ko guddi parce que moom mais loolu loolu lu ko lu ko lu ko lu ko fi jëlee lan moo ko fi jëlee li ko fi jëlee bokk na ci tey ma gis benn benn euh, titre boo xam ni Maowan mu bind defe naa euh, non benn vidéo la la def ci benn site internet mu ni notre démocratie se raidit dafa mel ni euh, depuis ay weer bi ñu commencé coow affaire pétrole bi ba léegi dafa mel ni dafa am ñu ñëpp. am ñoo xam ni ñi dañu commencé gis seen bopp ba pare buggatuñu nit ñi wax seen xalaat. loolu euh, war nañ ko gëstu. parce que Sénégal fii dañu mos a wax suñu xalaat. Euh, depuis ñun en tout cas ñun bi ñuy gune ba léegi donte ne temps wu Senghor. track nga am da ngay def trac wala nga nga def kii benn rajo moo fi amoon mhm. d' accord benn journal moo fi amoon mais terewutoon nit ñi doon wax seen xalaat ñi dañuy wax seen xalaat dem dem te booba moo wax la mhm. benn affaire gis nga booba amoon na fi benn dibiteri bu mag bu tuddoon Baye Mbari mhm. ministre yu bëri booba dañuy dem dibiteri di boloot l' après midi soo leen soxlaa ay ñoom ministre Abdoulaye na ak ñooñu soo leen soxlaa da ngay dem foofu ci dibiteri bi ñu toog <laughs> di lakk yi ab di naan ataaya ay nit la ñu mais léegi ministre boo gis fukki ponk la ko dab daanaka dañuy éloigné wu de la population. na nit ñi wàcc. ok di wax ak nit ñi. Mhm. d'accord ci ci ci ci fond bi comme ni mu ko abordé ci li nga xam ne moom lañ ko accuser euh, dinañ ñëw ci propos yi ni nga xam ni noonu la ko procureur chargé ak li nga xam ne yëpp mën nañ ci wax xam naa ne après dinañ ci ñëw mais ci ci fond bi bi nga xoolee euh, li nga xam ni mooy poste yi mu def. ndax jàpp nga ni mérité na lii. non moi je pense que Pape Ngagne quand même wax ci euh, quelque part da gis ni euh, même le débat politique dafay egg ci ba ci dafay tu as l'impression que nit ñi dañu bañante man li maam li aadama Gaye bind bu fekkee moo ko bind mooy pare que dafa dafa partagé leen beneen truc en tout cas rafetul parce que débat bi dafa war a nekk débat d'idée nit ñi di waxtaan di saafoonte ci xam-xam mais pas di ay dem ba ci wax ay nit ki nu mu juddoo fu mu dëkk ak ay saaga yooyu noonu vraiment loolu du du lu rafet parce que moom ah, man dem rek maa ngi regarda xoolaat benn benn émission bu mu def ci benn télévision française di wax ci dans les rapports entre la Chine et tey ji promotion bi mais vraiment tu es da ngay kontaan <laughs> comment naka la ko France journaliste française di ko di ko jéem a kase mm-hmm. mu mu la mm-hmm. Chine mm-hmm. dem ba wax ne France euh, et l'Afrique chinois sax nit ñu gën a joxee cër bokkul ak ni ñu français joxe cër les chinois dañuy ñëw pour ñu exploiter et français ñoom les français dañuy ñëw pour ñu exploiter or chinois yi jàppe ay nawle li développé par exemple da koy xool da ngay kontaan quoi mais je pense que tey jii livre boobu mérité woon nit ñi xam ko vraiment vraiment tu l'as suivi nit ñi mérité woon nañu ñu xam ko ci loolu sax gën ko xam ci li nga xamante ni tey moo ko dal parce que tey ji nit ñi ku ne yaa ngi xool Ibrahima kii Adama mooy kan Adama mooy kan je pense que question boobu war nañ ko poser jour bu génnee livre bi moo vraiment man man loolu ma nekk sama sama position par rapport à ça mais di ñaawlu vraiment wax ji mais di ñaan di ñaan également ñu ñu ñu jégal ko quoi je pense que également mag la te heure bi euh, rëbës ak tàngaay bi dafa metti yi Pape. d'accord euh, ci déglu nga sortie bi ci procureur def. am na ñoo xam ni jàpp nañu ne euh, charge yi daf ci juum wala ni mu ko waxe waru ko woon waxee noonu ndax gis nga ko ak nan nga ko gis li ma gis euh, ci bureau procureur ci affaire Guy Marius Sagna Guy en même temps ak Adama si en même euh, bi dañ ko yóbbu ci affaire Guy Marius Sagna je crois mhm. peut-être pas parce que sur sur Adama varié la invoqué mhm. ci ci ci affaire Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna aussi dinaa ci ñëw rapidement ci Guy Marius Sagna mais dama bëggoon ñu évacuer rapidement affaire Adama Gaye après ñu avancer ci ci affaire Guy Marius Sagna léegi li ma bëggoon xam mooy actuellement mhm. euh, tey jii mi ngi en